dangay koy jël live direct nga ko waay أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم xawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim moom de bu bu waxtaan bi gudd di ngeen xam ne imaam daf ma jox micro ba pare soog ma laaj ma reer la ma nekk tabaarakallah reer na waaye defe naa ci si gisee jiitu nañ ma fi ñoom sëñ Baara ak ñoom imaam ñu ngi nuyoo tey jéggalu ci retard bi di nuyu mbooloo mi Gambian United Association wala Sénégambian United Association la diggante Gambie ak Sénégal defe naa ne du ñaari dëkk waaye benn dëkk la barki démb rek bi ñuy maye doomu ambassadeur Codé ñu ngi wax ni pont bi ñu def diggante Sénégal ak Gambie pare na ba balaa sa defe naa dinañ ko inauguré mu ne nii foofu lañ ko yebal moom bu jógee euh, Nations Unies foofu lay pour jiite comité boobu nga xam ne mooy dox muy rataxal diggante Gambie wala boobu dafay gën a rataxal ndax ndem ñagas am na sax ndax koo gis Gàmbi rek ñaareel boo toppee bàyyi wala bàjjale mu dellu Sénégal koo gis Sénégal yi am na ay parents Gàmbi kon nag wet na lii mu ne ko ah comme ataaya ji rek nga teg teguloo suukar si ma it na téye sama suukar rek waaye ku nekk indi nga sa ataaya ku ci des indi suukar ñëpp ànd ngir mbooloo mën a mbooloo ak li tax ngeen dajaloo yàlla ko yàlla yombal ko barkeel ko mu mel na ñetti mbir rek xëy na la waxtaan wi di laal nga tëj gannaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne moo ñu def ay jullit te amul xéwal bu mel ni moom waxuma la xéwal bu bopp doole diine ji nga xam ne moom nga yàlla tànnal boppam mu boole la ci diine jooju nag bu dee danañ ko attaqué lu ne it ku wéet rek te xel xam nga ne diine melul ni xam ne yi tamit xéewal melul ni waaye seytaane dafa am benn méthode bu muy rayee yeneen culture yi ak yeneen civilisation yi defe naa ñu koy tuddee épistémistique les islamistes xam ngeen ne dëkk bii ñu nekk dañuy wax ne Christopher Columbus moo ko discover in 1492 loolu la ñuy jàngale ci école yi di ko jàngale ci école yi di ko jàngale ci école yi ndekkee en réalité Christopher Columbus mosul discover anything dañu jël un colonisateur ñu jox ko garaadu nit ku def discovery te moom he didn't anything but to ndax Chinese yee bu ko njëkk Égyptiens yee bu dégg nga Amérique Indien yee bu waaye booba Grenade daanu na Andalus daanu na rey nañ jullit ya fa nekk rey juif ya fa nekk massacre leen alal dañu am ñu utiliser ko pour ñëw fii coloniser ay nit ñi ñu rey leen ñii ñu nangal leen ci jamono yooyu am na ñaar ci seen bindkat yi ñu doon werante ndax ñu ñuul ñi ak indien yi fekk fii ay nit lañu yore ruux wala duñ ay nit ñu ñu war a ormaal lañ ndax seen diine wala ñu ñu war ba ñu gis ne ay nit lañu gaa waaye amuñu diine amuñu garaat ñu leen war a ormaalee kon nag def leen di jaam di leen liggéeyloo warul naqari yàlla ci turu christianisme loolu yëpp su amee ñu ñu nekk ci dëkk bu mel noonu yore fi njaboot boo xam ne njabootu lislaam lañ war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax épistémisaay épistémicité mooy tax ba ki koy véhiculer dafay écarter lépp lu dul la mu gëm ne loolu lañ war a gëm tey jii boo dee def bu ngeen dee bind seen paper yi university wala nga bind téere lu gën a bëri ci juróom-ñaari réew la sa delluwaay di dem ci borom xam-xam ya fa nekk muy France Espagne Italie United States United States and United Kingdom dégg nga ak peut-être Australie waaye yeneen civilisation yi duñ leen bàyyi xel loolu nag lu mët a xel la l'islam bi nga xam ne nag moo dajale yii yëpp te sama borom tabaraka wa taala tànnal ñu ko moo dajale xeeti xam-xam yëpp te suñ ko xamee xam ne ñi ñu foog ne ñoo xam bëri na luñ ñuy wax ci lislaam lañ ko tànkee ci alxuraan sax lañ ko tànkee xam nga philosophie Voltaire nga xam ne ci wàllu philosophie de la littérature de lumière kenn xamul ci bu ko gën a yéeme te pourtant mu ngi ko inspiré ci alxuraan ci son tout cas waaye doo ko dégg mu loo defee nag lu mat a bàyyi xel lay doon ñu xam ni am lan la kon nag euh, awdan bi bakki ñu ngi nuyu suñu kilifa bu baax bi dend ak ñun di imaam Jibril Dieye di imaamu zawiyatu zawiyatu Seydi El Hadji Malick ak ñi mu àndal yëpp président Talla président Baba ak le ministre Babacar moom nee na mooy ministre des affaires étrangères ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak suñu bàyyi bu baax bi bàyyi mbay Maodo tabarakallahu bi ñu dalal suñu mag suñu najaay suñu kilifa Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane da moom xaw ma Gambien la xaw ma ma ne xaw ma Gambien ma Sénégal ah, allah di nuyu tamit ambassadeur barki démb rek maa ngi nettali li doon wax ak eh, ambassadeur Fodé moom ñu koy nuyu di ko ziyaara moom it ak ñi nga xam ne ñoo seet mbir mi yëpp ak ñi nga xam ne nag mooy the most beautiful soul in the United States of America Alhaji Moustapha Senghor whom I love and admire ak sama président président euh, Ndeye Fatou ak Ibou Alhaji Ibou Alhaji ñëw ñëw waaw fan yële jot naa ne mu ngi gàmbi mbokk yi ma ne waxtaan wi ci ñetti yëf rek lay nekk incha allah bu njëkk bi mooy li wolof di wax balaa nga ne naam ne fa al qudwatu qabla daawati al adabu qabla ta'dibi al qudwatu qabla maanaam balaa ñoo mën a yar foofu liñ bëgg a def ci xale yi ñu càmbar suñu bopp ndax mi ngi bu fi newul ñu jël ko fee su fi nee ñu exemple mat na waxtaan wala ëpp na ko sax wala sax kenn mënu ko waxtaane mooy ki waxoon ne addabani rabbi wa hasanati bi ki nga xam ne li yàlla bind naama ma ci gën a kawe ndax nekkam moo ci gën di nekk bu dëgg mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xoolee moom nekkam ni mu yaree environnement am moo xam njabootu boppam bi la ci deret wala njabootu boppam bi ci ruux danañ gis loolu ni mu mën a affecté suñu bopp ak suñu njabootu bopp bi ndax li ñuy wax attachment mooy li gën a am solo ci àdduna te léeg-léeg dañ koy fàtte xam nga xale yi lu tax li ñuy wax peer pressure wala peer orientation lu tax xale yi di déglu seen morom ñi parce que dañoo attachment ñu la lu tax xale yi di def li seen morom ñi di def because there is attachment to their peers incha su attachment boobu nekk ci seen morom ñi ba ñu leen di déglu they need us our as parents more than they do need their peers parce que ñun as adults we can defend them we can protect them bas ba seen morom ñi liñ ne rek lañ leen di dugal te li gën a du nekk lu lu mu jëm sant yàlla ñu yàlla sutura sama yaay yaa ngi lële Adja Mariam Haydara koy nuyu bu baax a baax di ko ziar moom mooy sama yaay tabaarakallah bu njëkk bi mooy loolu mooy nekk royukaay nekk modèle pour xale yi yar leen in that passive way which is the most effective way ñaareel bi fukki mbir yi nga xam ne war nañ ko moytu ci guerre ndax de they destroy the psychology of the kid the future and the life of the child bu mujj bi mooy ñun being in the west yi nga xam ne moom la war a góorgóorlu ba mu nekk ci xale bi ñett yooyu lañ mën a lañ bëgg a waxtaanee sëriñ bi jox na ma 45 minutes su ci benn bi xajee ñu def ci benn bi su ci ñaari xajee ñu def ci ñaari su ci ñetti xajee ñu def ko ci incha allah. mbokk yi wax naa sànq ne ñun li ñu war a gën a mën a tiitaroo duul liñ foog ne moom lañ war a mën a tiitaroo waaye mooy suñu nekk di jullit. ndax bu dee nationalité bi la bu dee status bi la bu dee taar bi la bu dee nangam bi la bés bu dee yegsee yépp dem benn baat rek la tudd tuddatuma Muntaqa wala Muhammad tuddatuma Moustapha ki na ne ki tuddatul na ne lu ñuy wax néew bi ana néew bi te la ñuy néew bi fan ñuy rob néew bi loolu nag ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ba nga xam ne àdduna du ñu denc ba nga xam ne àdduna du ñu yóbbaale wax naa ne ak daaw al qudwatu qabla daawati ku nekk ci ñun nga wootee jëmee ci sa borom da nga njëkkee ci sa ñoñ ak lu la yàlla mën loo farata la nga def ko depending on what you know and according to whom you know or according to what you know and whom you know bés bu ñu bàyyee loolu sama borom danañu wax ne su ngeen wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum rôle bi ñu war a joué suñu doom yi ak ci bi suñ ko bàyyee yàlla ne ma remplacer leen ak ñeneen wax naa sànq jullit yi seen daanu ci Andalus bañ demee ba àdduna jëm jël leen ñu bëgg a mel ni ñañ fa fekk te ñoom civilisé Europe tey bu ñu wax civilisation ak barbarie da war a laaj according to who ak and what is civilization waaye bu fekkee Europe wala West civilisé nañu c'est l'islam qui les a civilisés islam daal civilise daal biñ demee nag ba dugg ci bànneex yi yàlla indi ñeneen tey jii dafa mel ne looloo xew jullit yi biñ defatul li ñu war a def ci woote ci jukkoo jukko jubaa ci nangam télévision yaa ngi fi lu la ñu wax ko jullit yi eh, Donald Trump ak waa këramal bi lu la ñu wax ko jullit yi eh, journal yi yaa ngi fi lu la ñu wax ko jullit yi te ba ci jullit yi seen bopp sax dañoo mujj ragal seen bopp jullit ba baat bi nga xam ne ñoom ñoo ko créé muy jihadiste ñun sax dañ koy wax jihadiste te mbir mënul gën a gën a gën a garaaw loolu wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum te ku nekk ci ñun na xam ne ambassadeur la pour islam ci fa mu nekk nee ñu benn waaye dafa ñëw États-Unis gis benn xale bu jigéen bëgg jabar mais xale bi di jullit mu wan ko yaay ji papa ji papa ji ne ko man du ma du ma ma ci ma ma ci dugg ndax sa mbokk jullit yàlla nangam ak nangam mu ne xale bi daal sama papa comme naka loo jullit moom daal bëggul relation ah yàlla def xale bu jigéen bi jógee foofu bëgg a xam lan lay lislaam gannaaw ñeenti weer mu dajee xale bu góor bi bi mu dajee moom xale góor bi gis ndaw si ci façon bu nga xam ne daf ko tiital mooy gis na ko mu ngi muuru mu ngi wante moom laaj ko lu xew mu ne ko dugg naa ci lislaam alhamdulilah parce que liir naa ba xam ne ndeke liir diine ji mooy diine dëgg mu ne ko waaye yow nag mënumaa sëy yow ndax yow duy jullit ndax li ma jàng ne ab jullit noonu la loolu ci yow loolu nag muy lu ku nekk ci ñun war a bàyyi xel ndax li wax ne loolu jullit war a mel mel nañ loolu est-ce que ñu ngi woon nit ñi ci lislaam wala ñu leen di dàq ci lislaam kon nag nekk royukaay balaa ngaa defloo njaboot lu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne te li mu lu ma ci bàyyi xam nga li gën a dangereux gën a am solo mooy jëf joo xam ne boo dundee mi ngi boo dee mi ngi jëf yëpp ba ma ci gën a rëy waaye moo ci gën a dangereux yonent bi sallallahu alayhi wax na ne am bokk na ci liy fekk nit ki bu fi jógee gannaaw dee tudd na yu bëri tudd na xam-xam bu mu xam ne waaye tudd na doom bu baax bu mu fi bàyyi tudd kaamil bu mu sax donnloo nit ñi ñu di ko jàng jàkk ji mu tabax wala néeg bu mu defaral ñi romb am fu ñu tëdd wala dex bu mu gas wala teen wala dex bu mu dawal wala sarax bu mu joxe nit ñi di ci jëriñoo mu ne yëpp daf fekk fa mu nekk gannaaw bu mu dee wa naktubu ma qaddamu wa athaarahum loolu la ko am naka noonu tamit ñuy tabax club bu ñoo feccee ah ku fa feccee rek yàlla jox ko ca portion ak fu mu mën a nekk mbokk yi kenn ci ñun mënta texe ci àdduna lu dul nga gis say njaboot jaar ci yoon wa nga bëgg ñu jaar yàlla dafa ne Seydina Adam fexeel leen yàgg sa jabar bu leen iblis génnee aljanna falaa yuxrijannakuma min aljannati fatashqa aadama la wax ne ko bu leen génnee yaay texee di de yaay sonn waaye bu borom kër sonnee ñam njaboote sonn waaye yow tamit bu njaboot sonnee du mën a nekk mukk inna laka an laa tajua biha wala taara ila axiri ma qaalahu tabaraka wa taala yonentu sallallahu alayhi wa sallam wan nañu yoon yi nga xam ne moom la ñuy jaar as a father and as a mother ba nekk rôle model ci suñuy njaboot féet nag dëgguwuma bu ma expect dëggu ci sama doom féet feguwuma bu ci sama sama bët yi du teggeeku ci li naqari yàlla moo xam télévision la wala leneen la du ma ko mën a tere sama doom kon bàyyi ak yaay yi yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa ne ñooy yàq doom fa abawaaw yuhawwidaani aw yunassiraani aw yumajjisaani ndax ñoo gën a jege doom yi nuñ mel ak noonu la doom yi mel wala lu gën a bañ yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bu ñu ko jëlee comme rôle modèle ndey Aïcha laaj ko nan la jikko meloon mu ne kaana xuluquhul Qur'aan maanaam alquran adduna la wala kawnu bi alquran di noppi la alquran di adduna buy wax ñu ne waaye yonent bi nag mooy alquran bi dox sallallahu alayhi wa sallam kon nan laa mel ak alquran pour mu mën kaa mel ak sama njaboot góor ga mu ne yaa ayuha rajulu muallimu gayrahu hal laa li nafsika kaana li taalimu تصف الدواء لذي السقام ولذي الظنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك بلاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم xam nga docteur yi bu njëkk xakim programme la leen tuddee xakim xakim mooy koo xam ne la muy def amu ca amu ca bénéfice yow mi ngi koy defal yaa koy jëriñu ba may yuutal xikmata faqad uutiya xayran kasiiran waaye léegi nag tuddatul ndax léegi xaalis a tax moo tax dégg ngeen commune lañ tudd tuddul Hakim yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo tudd Hakim moo tudd adib addaba li rabbi ba ahsana ta'dibi kon bu dee ci jikko nañ ca njëkk bu dee ci jaamu yàlla yonentu sallallahu alayhi wa sallam fa daan julli ba oomam yi wala ba ndëgoom yi néew yi ni ko Ndeye Aïssatou waxee bu ma ne ko ngay def nii yëpp yàlla baal la mu ne afala akuna abdan shakura beneen bi mooy lu baax lu ñuy def ci suñu kër nañ fexe mu nekk luy sax xale yi di ko gis ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana amaluhu diima aw dayma loolu lañ day Aysatu wax nee na yonent bi dafa nekk lu daan sax wax na sax moom yonent ne ahabbu al-a'maali ila llahi adwamuha wa in qalla bu dee ci digganteem connexion ak yàlla bi ci gën a mooy julli ndax asala sila nan la borom kër gi mel nan la yaay di mel ci julli pour mën ko jox xale bi ñu gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom coolness of his eye was in prayer wa ju'ilat qurratu ayni bi salaat sayyid rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu demaan ba sonn ci àdduna ak yi xew mu ne arina biha ya bilal and no xooteel ñu julli ndax ñu noppalu ci àdduna xam nga ne amuloo am na koo xam ne ci julli lay yëgee noflaay am na koo xam ne fay julli ba pare dem noppalu ji du benn xamul ndax ku muy day day la kalim nusrahu aw tusminu lu muy firi mooy lu alquran wax rek naa ci jiitu soog caa jéem a yóbbu sama njaboot xale bi bu gisee baayam di julli bu gisee yaay baayam di woor bu gisee yaayam bi julli bu gisee yaayam di woor dina xam ne lii lu mu war a def la waaye su fekkee ne bu show amee ci TV bi wala game am football am Sénégal ñu ngi football loolu pare na ah pare na ne ko kon ma bàyyi xam nga Moustapha Moustapha Mahmoud benn benn xalaatkat égyptien nee na the greatest achievement the greatest achievement the underdeveloped countries have achieved is that they have convinced their people, their citizens, that good participation to the Cup is of a great success. But health and educational problems are of no importance. xam nga loolu garaaw na mu ne bu ñu demee ba tànk yi gën a cher mbokk yi bu ñu demee ba tànk yi ëpp valeur xeeñ bi xam nga coupe du monde kay man dañ dem football yi le Sénégal ngay ñëw naan waaye adduna bi yëpp Sénégal yëpp nekk coupe du monde ba ci président ba ci gouvernement si liggéey kenn liggéey ko xam nga jamono yi ñuy football bu génnoon ci mbedd ngay la ngay dam ñaxtu ndax hôpital bi doxul wala wér kenn du la dégg loolu na rek am na ñaar musal mooy wala wala maanaam saxaar suñ borom mën nañu ne kër bu ñuy taxawalee julli di fa digal njaboot bi ñu taxawalee fa julli ne na kër googu waruñu jaaxle ci wërsëg wa amur ahlaka bi salaati wastabir alayha laa nasaluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu li taqwa ku nekk bëgg na wërsëg mu ne waaye fexeel ba sa njaboot baax ak a baax ànd ak ñoom rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu nan la ñuy jàngalee xale yi generosity, generosity, welcome. Those of you who speak English. Huh? I do? I try. mooy yonentu sallallahu alayhi wa sallam du du wax ne joxe leen dafay joxe ba nit ñi duñ xamante kii joxe moom taw la wala nit kuy joxe la rek sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn waaye bu jógee ci diiram ñëw ñaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam fekk yonentu ci tund woo xam ne foo xool ay nag la foo xool ay gëlëm la foo xool ay xar ne ko li nga gis kilomètres yi yëpp yaa ko moom jëlal pour yonent bi boo fooyee waaye ne ko yaa ko moom mu jiital yëpp ba muy yegg ci mu naan yaa qawmi aslimu wa inna muhammadan yu'ti ataa man laa yaxaafu baqa sama sama waa dëkk kaay leen ngeen nekk ay jullit kaay leen ngeen tuub kaay leen dugg ci lislaam gis naa koo xam ne buy joxe na muy joxe ku ragal ñàkk du joxe maanaam yooyu bu bu daan joxe ba amatul lu mu lekk Bilaal daal di Bilaal yooyu bu jël ba daan denc as lëf pour yooyu du mën ci lekk mu daan anfiq yaa Bilaal wala taxsha min al-'arshi itlaaqa bul foog mu créé yàlla dinañu seetaan demee nag yow Bilaal fa inna Muhammadan yu'ti 'ataa'a man laa yaxsha faqra bu dee ci matérialisme bi ñu nekk nga xam ne tey xale boo gis amul mënatul wax ak papaam ndax téléphone ndax ordinateur ndax ndax ndax ndax balaa ñoo fekk balaa ñoo dindi xale yi ci addiction boobu dinañ ci dindi suñu bopp mu jëlee mu ne looy jooy yow Omar mu ne ko xam ne ngay nelaw ci ndës te Malik Kisra bu Faris ma ngay nelaw ci ay soy ay soie. yu kenn xamul valeur ba ñàkk mu ne ko Omar lépp ni du nguur nu buwat bàyyi leen ak adduna ñun ñu mu àllaaxira te nag bu ko neexoon adduna yëpp di wër si yàlla wa raawadathu jibaalu shiblu min dahabin an nafsihi fa araaha ayyuma shimabi wa akkada zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la taadu ala al-ihsan fa kayfa tad'u ila ad-dunya daruratu man lawlaahu lam taxruj ad-dunya min al-adami muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sayyidul kawnayni jërëjëf présidente ak Khadijatu Diop Tamba Muhammadun sayyidul kawnayni wal faqadayni wal huriyatayni min urbin wa min ajam moom dafa demoon ba naan alaaj Adja Fatou Ndiaye Maodo jërëjëf allahumma ij'al rizqa ali muhammadin tabaaba man naa am lu ma doy rek li ci des yëpp sama yoon newu ci sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf daan wax maa lii wa li dunya ana man ak àdduna maa lii wa li dunya ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سويان حيدر مرحبا loolu la la def ci njabootam ku mel ni Seydina Aboubacar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay joxe nag ñi ñuy joxe ci yàlla mu joxe li ma ne mu ne ko loo desal yow Aboubacar maa ab xayta yaa Aboubacar mu ne ko yàlla ko yonentam laa desal sama bu ko defee. nga teel a jàngal xale bi nekk nekk ñàkk du waaye ñàkk ci xol lay nekk yoonu sallallahu alayhi wa sallam dafa ne the richness is the rich of the soul loolu la ñu yoonu sallallahu alayhi wa sallam eh, jàngal bu fekkee ne ci wàllu liggéey la moo xam ci njaboot la moo xam fu ñu nekk yoonu sallallahu alayhi wa sallam kenn mosu ko ak saxaabaam yi ci benn liggéey bu ñu def daan na wax ne man xamil man xamala silaatahu a bari'a min al-kibr ku nekk la daan tooga moom sallallahu alayhi wa sallam waaye man su fekkee ne am naa liggéey bu baax wala am a docteur wala am naa benn university whatever diploma I think ay man léegi am naa ñeneen ñu ma kawe wala am naa benn métier ma foog ne kawe naa nit ñi ndax loolu fekk yonent sallallahu alayhi wa sallam mm, génne nañ ci loolu te kuy def loolu sa kanam doom yi yaa ngeen koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd na ak ay ay ay ay ay ay ay xale xadis ak ay ay saxaabaam xadis ne Zarqaani ci dundoo wax na ne sax am na lu ci ne waaye mën nañ ci jàng saxaaba yi bëgg a topp gàtt kii ne man maa koy rendi kii ne maa koy foos fees kële ne maa koy teg topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom laay taxan mag ci ñu ne ko déedéet mën naa loolu mën ñu ne ko mën nañ la refal loolu mu ne xam naa loolu jazaakumullaahu xayran ñu ne ko mën nañ ko def mu ne xam naa loolu waaye bëgguma am benn ràññeeku bi seen diggante walakin akrahu an atamayaza aleykum wa inna allaha subhanahu wa taala yakrahu min abdihi an yaraahu mutamayizan bayna ashaabihi sallallahu alayhi wa sallam bu dee ci biir njaboot gi yonentu ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam moo xam sa soxna la wala sa jëkkër la wala say doom la te bu ne maa gën ci sama njaboot sallallahu alayhi wa sallam bu dee bale nday Aïcha mooy yéen ko daan bale gërëm hey bale fi yow xoolal ci lim bi yow du daawul def loolu daf daan daax ay daan daf daan defar ay daan di daax ay yére bu nit nag ànd taseeg moom mu taxaw bàyyi ko mu jàll loolu yëpp ci tawaabu am nga sallallahu alayhi wa sallam adi doomu xaatum bu ñu ne ko yonent ki nga bëgg a seet ab buur la rek te bàyyi moo koon alal ci àdduna nee na ma def bi ma demee di ko observé bi ma yeggee njegenaay gi mu sóoni woon mu jox ma bi ñu àndee jëm këram ku nekk di ko arrêté muy taxaw mu ne am jigéen bu ko arrêté taxaw ak moom di ko wax soxla di ko wax soxla di ko wax soxla ba ñu koy ma ne lii duñu buur ko ndax buur yi jigéen bu leen taxaw lii ak yonent la moom jikko ak torox lu yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent ci moom daan wax ne inna ana ibnu imra'atin min quraysh kaanat ta'kulu kaanat ta'kulu al-hadida sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bu dee ci njàmbaar bu dee ci baale xale yi léegi baaleetuñu yaa leen koy jàngal ndax yonent bi noonu la meloon bu dee ci njàmbaar yaa leen koy jàngal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga dem mooy sa royukaay noonu la meloon kaana ashja'a an-naas sallallahu alayhi wa sallam léegi ñu bés dara teew na Madina ñëpp génn bi seeti lan la balaa ñoo génn nekk dem yonent dem ba dajeeg yëf yi sallallahu alayhi wa sallam kon nag booye bu njëkk mbokk yi mooy nañu nekk royukaayu xale yi balaa ñu leen di royloo luñ bëgg ñu roy balaa leen di def loolu liñ bëgg ñu def ko te bokk na ci gën a am solo mooy at tabaatu al mabda'i mooy sa principe dem baax la bu la ca kenn génn loolu sallallahu alayhi wa sallam noonu la mel bu ñu tegoon sama bu ñu tegoon fii la jant bi te fii weer bi dama génn ci lu mel kon nag li li ñu nekk nga tey di nga gis euh, euh, di nga gis ku tudd Sénégal lu ñuy waxee mat wala Gambie mat mu ñëwee fi lépp mooy maadi président yow nañ jàng ni ñuy prononcé sa tur ngir yàlla sama sisters yi waajal ngay very important lesson nañ wàññi coow tuuti rek wala ñu bàyyi ba sax. suñ ko mënee bàyyi moo ñu gënal nag parce que xale yaa ngi déglu mag yaa ngi déglu te yéen ay jàngale yi nekk ci ay kër yi lii da ngay ñëw déglu si avant rek te mu ngi doon benn important la nga lii nii kenn la koo fay di ma dara ñëw rek ñu demande tuuti jërë ngeen jëf. ma ne waaw bu ñun ñëpp bu ñu waxee rek ba defee loolu la jàngal xale xale yi bu ñuy wax ak ñoom ñoom it ñoom ñuy wax rek naan yow laay waxal te nekk sa garab yi ñoo ngi fekk ñoo ngi ko jàngal te yëguñu ko waaye tabarakallah Seydina Omar dafa ni dafa dafa am màngo mu bëri mu ñëw boo xam ne wax nañ ne boo taxawee fii ndax bëri màngo bi keneen taxaw fa ne doo ko séen ndax kawe ga ci buru sa lu nekk mu yéem ci ñi ko indi lu tax alal ju ci ñu indi ko jëlu ci dara Ali ne ko ndax dañu def laa mu ne ko waaw mu ne ko yaa baax rek ñu baax boo bonoon rek ñu la topp bon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ci yonent sallallahu alayhi wa sallam la ko roy kon nag bu ñu mën a am mukk doom ju ñu bëgg mu mel ni mu war a mel tant que ñun mel ni yàlla bëgg ñu mel subhanahu wa taala yonent sallallahu alayhi wa sallam daanul seetaan benn détail lu dul mu jàngal saxaaba yi nan la ñu war a mel ñu ne suñu doom boobu noonu la ñu war a mel benn saxaaba yi dafay gàttaay si jëm yonent bi ñëw leen jàpp mu ne leen su ngeen ma bàyyee du ngeen mos a seeti sama ay mos a xeexati ngeen mu bàyyi ko bi mu ñëwee moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu waxanteeg ñoom ay at moom fàtte na waaye yonent bi fàtte ñuy dem xare mu jóg bëgg ànd ci xare bi yonent bi ne ba déet ñëw doo mën a dem mu ne ko lu tax mu ne ko fàttali ko la nga digoon danga noonu doo xeexateeg ñoom kon yow doo dem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon nag ba nabi sallallahu alayhi wa sallam toog ko ci bi kulli shay ñun tamit as parents we have to be the role models of our kids if you want to be good that that start from us and with us and by us bu ko defee ñu bàyyi bu baax mbokk balaa ñoo mën a jàngal xale bi mu jaar fi ñu bëgg mu jaar loolu mooy bu njëkk bi du jël yëpp gannaaw bi def ma jox damay damay wàññi loolu ma dem ci point bi ñaareelu point bi mooy wax naa ne we as parents ñu am fukki yëpp yu ñu war a avoid fukki yëf yu ñu war a avoid bu ñuy yar suñu doom yi ndax bu ci nekk mën na leen a yàqal psychological bu njëkk bi mooy li ñuy tuddee saaga saaga nag su ma ko waxee mooy ngay woowee xale bi ay tur to call the kid names yow baax nga rek wala xar nga rek wala nag nga rek baat yooyu bokk na ci baat yi nga xam ne du denc bokk xale bi parce que ki ko koy wax mooy ki mu gën a estimé ci mooy papa wala moo yaayam ñaareel bi mooy bu ko doyadal mukk mooy nga koy woowee tur yoo xam ne lu mel ni yow ku yow ku yu dem mésérobo wala fenkat ku bon la wala sax nim mel xanaa ko sa yaram sa sa your part wala nangam those things nañ ci bari xel buñ ko buñ ci bopp ñetteel bi mooy comparing the kids yow de sa mbokk la gën yow de soo nangamoon yow de boo meloon nangam yow de sa nangam xale bu nekk am na lu ko yàlla jox fexeel ba identify loolu nga dimbale ko au nga koy tuutal wala nga koy doy daal na nga ko parce que sa kàddu yow Kaolack amul benn kàddu bu mel ni moom ci xale bi te it boo koy comparer ak mbokkam moo xam system la brother yaa ngi yaa ngi yaa ngi bind hatred yaa ngi bind mbañaan ci seen ci seen diggante ñeenteel bi mooy al xubbul mashruut mooy the condition of boo boo boo meloon nangam wala bëgguma la ndax dangaa def nangam ak nangam soo exemple moom bu kii woon ci sa exemple yi day tax nangam wala nangam déedéet xale bi bul ko conditionné mbëggeel dëgg la war nga ko corriger war nga ko nangam waaye show them everything you have in love of love from the bottom of your heart parce que amul kenn ku leen ko gën a soxla yow it amul kenn ko gën a soxlaa jox pour sa doom te loo ko ci jox nag du doy moom laa doon wax sànq ci attachment parce que xale bi boo gisee du la déglu rek mooy instant attaque to you léegi nag soo ko wanee ne ko yow you do care about them fu mu nekk lu mu nekk daa ko xam te boo ko waxee dina la déglu te tamit soo ko soo ko joxee conditional love day tax su màggee he does not feel belonging to this family dafay jàpp ne kuñ bañ la woon moom te loolu dafay màggat moom gisuloo xale yi seen maam yi lañ gën a bëgg ci seen yaay seen baay parce que mbëggeelu maam amul condition lu xale bi def def na dëgg la xale bi war nga ko corrigé wala nga ko nangam waaye watch nga maam way ñu topp la yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wan nañu daat love that has no condition ci biir njabootam alayhi salatu wasalaam jërëjëf jazakallahu xeyran barakallahu thank you yonentu nekk na di xutba xasarat dafay romb ci biir nit yi toogu ñoom ñu ngi yonentu bi wàcc na minbar bi jël leen ñoom ñaar nekk daal di neex yàlla daal wax na dëgg waalamu annama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun mu ne xoolal rek ñaari xale yi mënu ma muy mënu ma wàcc leen jël leen noonu mu toog ñëpp toog lu jël xasar commencé di ko di ko fóon ko fóon benn saxaab bi ne ko am naa fukki doom mosuma jëfoon kenn yonent bi salaay salaam xool ko ba ci kanam mu ne ko man laa yarxam laa yarxam ku amul yàlla du la yërëm nekk na di julli ñu ne Xasan ñi ne Xuseyn fekk mi ngi sujjóot mu war ci kawam nekkul ko bu doon léegi dañuy dañuy dóor xale bi wala nekk ci sujjóot bougé wu lu yàgg benn saxaab bi nee na ma yëkkati sama bopp gis na yonent bi sujjóot Xasan ci kawam wala Xuseen ñaari am na wax na wax nañ nee na ma suuf suuf si jotaat bi julli gi pare yi ne ko yëf yi dafa yàgg ba dañu foogee dafa am lu jot mu ne déedéet xale bi nekk ci sama kaw te bëgguma koo ne yàqal nguuram nekk na di julli sallallahu alayhi wa dégg xale bu yuuxu wala dinaa yi jullee xale bi yuuxu ma yëg li yaayam di yëg tax ma gàttal sama bi sallallahu alayhi wa loolu la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal loolu tamit dañ koo soxla pour suñ diggante ak suñ xale yi beneen bi ci des mooy al ihbaab mooy doon nay the ignorance lu mu xam fexeel ba xool ban méthode la mën a utiliser pour jàngal ko loolee waaye bu ko wax ne yow koy amoo njëriñ yow koy seetaani sa xalatari yow koy yow ni nga dofee yow koy nangam beneen bi boo demee ba punishment mënta ñàkk bu ko wax loo xam ne leer na la ne doo ko def ndax boo ko waxee yaa ngi koy jàngal wax lu dëgg moom lañ tuddee ak tahdid ak xaafa yow damay dàmb sa bopp wala dinaa naan sa dinaa lekk sa fan yi loolu saaw saaw yi dañuy wax la dafa araam dinaa lekk sa fan yi wala dinaa naan sa deret dégg nga dina war boo defati rek ma rey la wala ma rey la te xam nga doo ko rey doo ko rey yaa ngi koy yaa ngi koy wax loo xam ne ni yaa koy jàngal loo xam ne jabut yonentu sallallahu alayhi wa sallam gis na kuy wax ak benn xaleel ne dama lay jox boo defee naan nanga ma jox la mu ne loo koy jox ne ko tànnal ma mu ne ko boo xamal ne boo ko ko joxul dina la ko bindal bu yow kay c'est-à-dire que naxee xale bi loo xam ne doo ko def beneen bi mooy bu ko teree rek just because you want to say no boo koy teree fexeel ba convaincre xamal ko ne ko li tax nga koy tere mooy lii ak lii ak lii xam nga bizarre things yu ñuy yoo xam ne dañuy foog ne civilisation wala culture bi la fekk islamic has nothing to do with it xam nga Europe ñi fa njëkk a am constitution mooy France moom la ñuy bu Napoléon Bonaparte gis nga constitution française seen loi soo demoon ba traduire ko conférence bi arab dafa mel ni nga jël mu taxaw Cheikh Ahmed ci fépp moment yi fii lañ ko yëg parce que Napoléon du du c'est pas un avocat empereur la wala mën nga wax sax dictateur la parce que moo nekkoon premier consul pour Paris après mu fexe mu boole lépp te booba dëkk bu nekk seen culture seen aada lañ mën a teew te moom bëgg na def tàcc ñu fexe ba jot ci ngir imam parce que moo leen gën a jege àndoonu sa niveau te waa lambe yi nekkoon Italie ci boppam ay junne lañ daan yónni ko ne ñuy jàngi ko li ñu tuddee de new roman law ci fekkoon imam Malik lay gënale waaye duñ ko te loolu nag moo ñëw ko fii moo tax xalaat takoo jullit ba mu ne dem naa Occident wahabtu ila al-gharb wa wajadtu islam wa lam ara al-muslimin wa raja'tu ila al ووجدت المسلمين ولم أرى الإسلام dem naa west ma fekk fa lislaam te fekk mu fa jullit ma ñib si Orient fekk mu jullit yi te fekk mu fa that is exactly what happened moo tax mu ne boo koy tere yi tamit fexeel ba ni koy tere nga wax ko lu tax beneen bi mooy au lieu nga nga ñaan yàlla ñaanal ko yàlla dinaa saalu saalu nga xam ne ñu ñaan yàlla ñaanal yàlla ñaan yàlla mooy yàlla nga dee yàlla nga àll yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bu def ndax mën naa am nga dajeeg waxtu nangu nga lor sa njaboot te boo loree sa njaboot yaay lor am na sa borom xam yàlla sa njaboot sa du parce que euh, utal nañ ko wax na du waxal sallallahu alayhi koy ñaan yàlla au lieu nga koy ñaan yàlla ñaanal ko beneen bi mooy. xale bi ni mel ci biir bu ko exposé ci biti am na ñoo xam ne bu ñu toogee bu leen naqari ci seen njaboot ñëpp dinañ ko dégg bu xale bi ñëwee ñu ne ko moom la nangam moom la nangam yooyu yëpp dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ koo war a moytu ñi nga xam ne nag ñun ñi nekk biir États-Unis d'Amérique ñun ñu nekk biir Amérique wala ñun ñu nekk West war nañ cee góorgóorlu ba def ko ci suñu bopp ak suñu xale yi. am na yoo xam ne ci biir kër am na yoo xam ne ci biir kër gi la ma ne bi as parents there are things that we should do for our kids or in our kids in the house and outside the house these are the most important things I want to talk about buñ ci paree ci lee rek mën nañu delloo micro kilifa bi continuer mooy ñu fexe ba xale bi miin yàlla The first thing we need to do is not only to pray on time, but to make sure we do pray with our kids in the masjid, a masjid around, or in congregation in the house. That is number one thing we need to do as parents. fexe ba di ak suñ doom yi bu dee dañuy dem jàkka ji ñoo ngàmp leen yóbbu parce que gis bi wax nañ ne ni ngi commencé day start developing o personality on their very second year xale ci ñaareelu atam rek muy commencé développer personnalité te ku nekk ci ñun war na identify when they speak to their kids whether they have owned no psychologists yi dañ lay laaj When did you own or when did you have the heart of your kid with you xam nga xale ni du déglu ku mu bëggut du toppit ku mu bëggut jàngalekat bi ko bëgg wala bi mu bëggut sax mënu koo jàngal dëgg ci boppam ñu ne nag war nga fexe ba identify the very time in the lifetime of the child the very time you own the heart of the child xam nga xale bi mën na la wax I love you maam fekk dafay toppandoo but the first the very first moment she or he told you tells you I love you maam and you know this comes from his heart that's the very time you own the heart of your child that's the very time that you can start now talking to your child and they will listen to you moo tax benn détail ci dundu xale bi ëpp naa benn détail ëpp naa soo li ñuy njëkk a def mooy su may julli ma indi ko ci sama fekk ma ànd ak moom julli benn waaye dafa ma nettali mu ne dafa dem kër xam naa xarit bi ma ñu mu ne timis jot ma jot jàpp bi ma jàppee ba pare pour julli nee na ma lay ziar bu a seet si moom tamit jot jàpp nee na xale ne ko daal war ñu duwee Allah siyaare mu ne ci kanam gan kon nag li ñu njëkk a war a tuut ci xale bi mooy fexe ba dugal ci ñoom bëgg julli parce que julli ak bëgg julli bi bëri danañ jàngal xale ba di you teach how to love to pray parce que boo jàngalee xale bi ne ko ki ngay taxaw ci kanamam muy yàlla li ngay wut yëpp ci loxoom la nekk fexe ba xale bi miin boromam te julli nag mooy the easiest way to get the kid know Allah tabaraka wa taala because as-salat means connection as-salatu silatun bayna al-abdi wa rabb subhanahu wa taala the number two thing like we need to put in the heart in, in the life of is to daily listen to the Quran and to daily the Quran. ni ñuy dajaloo di seetaante leen nañ koy dajaloo day am one hour or twenty minutes a day bu ñuy dajaloo suñu njaboot ñu lire alquran wala ñu déglu alquran benn waaye mu ne dafa am ko mos a ci taxem ci dëkku naar yi la nekk nee bi mu duggee. ñu taal rajo fekk ni ñu taal rajo bi alxuraan lañ ci taxi bi mu ne ko mbaa jàmm la ndax dafa am dafa am ko dee wala dafa am ko ko dee pour moom balaa ñu déglu alxuraan rek dëgg moo war a am te loolu dafay am gis nga Sénégal boo suba bu subaa boo xëyee nga jàpp wal fajiri ñu teg alxuraan nga jàpp TFM ñu teg alxuraan nga jàpp RTS ñu teg alxuraan booyee woo xam ne kilifa bu mag day la kon kon yàlla billaahi tabaaraka wa taala yal na yàlla dundal suñu kilifa yëpp kon nag jàngum alquran bi nañ ko def ci xale yi waaye nañ ko organise ba nga xam ne on the daily basis dinañ am moment of Quran in the house te itamit nañ am habit we should have habit to gather for food buñ def rek ñu teg nekk bi ñu rek ku nekk rek dem jël ci wàññi nga lekkal sa bopp déedéet nañu fexe ba am habitude lekk ci mbooloo bu dee once a day nañ koy def sax we should have that parce que am na lu muy def ci xale yi bi ci we should teach these kids not only the Quran but try our best to teach them the language of Quran which is the Arabic and one of the most important things is to teach these kids our native languages nañu fexe ba xale yi bu dee soose laa naa ko jàngal soose bu dee alpulaar laa naa ko jàngal alpulaar bu dee wolof laa naa ko jàngal wolof gis nga xale bi bu ko wax anglais waaye because he's gonna understand English anyway parce que bés bu set loolu lay jàng bul foog ne làkk yi danañ jaxasoo ci moom you know five languages wax ko juróomi làkk li nga wax yi nga xam yépp wax ko juróomi làkk yi nga xam yépp lépp la ñuy xam parce que amul they have no bills to about te beneen bi ci gën a am solo mooy gis nga xale yi bu ñuy xuloo bu ñuy bu ñu leen di yàq di làkk anglais instead of listening to us they laugh at us because we have accent kon bu pour ñu bañ a souffrir for us not to suffer we have to our our mother tongue language that is a must am na ñoo xam ne ah moom moom de déggul nangam moom de nangam waaye dinaa ko yóbbu Afrique pour ñu wolof wax nangam parce que bu bu bu bu commencé bañ sa culture disons la ci la lay commencé yow ci sa bopp xeet ci lay commencé dem ci leneen dégg nga te ñàkk leen koo jox il a way moo koy benn mbokk waa Guinée la daf ma woo benn bés di jooy bisantula xel mu ma xale bi loolu sax dinaa dinaa ci yegg parce que day am solo mu ne bi dafa dem université nee na bi mu ñëwee vacances ba dafa stage ñuy julli kooku du Oustaz Abdou Latif maa ngi ziar macha allah wan macha allah nee na bi julli jotee ma ne xale bi nag ate jobal bi Ibrahima la tudd loolu parce que loolu noonu sax dañ koy waaye kenn allah mu ne doom ji ko there no such God to pray to moo tax bokk na among the most I will say maybe many will not like among the most dangerous things and among the things that there no thing to me worse than that in this age of and, and time to, than sending our kids to universities. That, I mean, that, let them go to university, but let them come back home every single night and sleep Let them go to the university here in New York, if you live in New York, and come back home. waaye nag xale bi nekk ci âge bi nga nu mu tuddati bi gën a dangereux ci âge âge bi nga xam ne li mooy âge bi ko mën a pénétrer mooy âge bi mën a def ci moom lu nekk yow liñ ci def yëpp fukki at ak juróom-ñaar bi ñu rek sànni ko ci am na mboolu yàlla jàpp am nga mboolu am nga mboolu sa saaba am nga mboolu foo xam ne ñi am diine nga fa ñi amul diine nga fa ñi gëm yàlla nga fa ñi gëmul yàlla nga fa lu ne ñu war ko dugal ci boppam loolu mooy li gën a rong and I insist te man am naa ci expérience yu bëri bëri ñoo xam ne gis naa ñu def ko bëri ñu wéccu te gis naa it ñu dugal seen xale ci université yii ñuy xeet buñ demee ba am seen licence seen bachelor pour bëgg def seen master dañ dem feneen fekk booba dëgër nañ sax dégg The e there are good, good universities. I say the best universities in the United States of America are the worst universities in good char in character and in manners. loolu moom bu ñu am complexe xale bi naan laaw daal di xam nga fii dafa baax dañ lay jox scholarship nge nge nge nge nga bàyyi leen ñu dem ñax dina sa kaw. benn benn sawuñu ak fële ca Canada doomam dafa dem université gisal dafa benn xale bi góor ñu jullit nga xam ne su waxee bàyyi bi bàyyi bi du d'accord mu arrangé ba sëyeeg waaj bi ko papa ji yëgee di def lu nekk pour tas sëy bi xale bi wol ko police papa ji delloo dinañ ko eh, Arabie Saoudite doom xale doom ji mi ngeen mi I was in a restaurant yesterday xale bi ne ma I was born Muslim but I'm not Muslim anymore and that is not something that is just rare it happens a lot. gis ngeen ni nga xamee ne noonu la l'islam di growee nit ñi di ñëw di ñu gis ci l'islam the same way we have our kids identifying themselves as atheists or non-Muslims anymore te loolu ñun as parents we na in it nañu fexe nag so yar suñu doom yi in a such manner boo xam ne bés bu ñu demee ba bëgg dem université dinañu dégg waaye su fekkee xale bi déggaluñu we go, okay, he doesn't care or she doesn't care. She's just going to do whatever they want to do. loolu tamit lañ ci bàyyi xel maa ngi ko dugaloon rek ci fexe ba jàngal leen suñu culture waaye suñu làkk ndax su ma bëggee xas xale bi di anglais dama dégguma anglais xale bi dafay ree xam nga ne yaayu daal ak anglais bi ñu mën ko xas xale sama yaay yaayu daal man koy ziar waaye moom man ni sama jarbaat xale yi ñëw dégg ma ci gën a bàyyi ci xel beneen bi mooy fexe ba the Islamic manners the family manners which are taught to us by Allah in the Quran especially in Surah An-Nur ñu def ko ci xale yi we have to put that in the heart in the in the heart and in the life of the kids ba nga xam ne heure bi ñuy tëgg xam nañ ko lu ñuy wax seen wéy bi xam nañ ko fexeel ba relationship bi xale bi di am ak yow bu mu bees upon what you want ba ëppoon war allah tabaraka wa taala wax ndax yonent bi sallallahu wa wax nañu ne xale bi wala jullit bi xal janna mi ngi ci suufu tànk bu ndey yonent bi wax nañu ne ridallahi fi ridal walidayni ñu fexe ba xale bi xam loolu ne bu way julli kontaanee yàlla kontaan ñu fexe yi tamit ba xale bi ak mu mën a demee na fanaan si jigéen li ñuy wax dem aw dooro fanaan ci seen kër xale yeeg yooyu yëpp dañ ko moytu te loolu yëpp nag luñ mën a def ba su fekkee ne xale from early age def nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko def mooy a xew nañ wut luñ mën a nekk nañ xam lan la we don't want to over control them but monitor them and help them beneen bi mooy fexe ba lii dugg ci biiru xale bi mu fexe nekk lu lew xam nga dañuy wax ne ak suñu borom may nañu ñu lekk ñam ahlul kitaab wa ta'aamul laziina uutul kitaaba hilun lakum wa ta'aamukum hilun lahum waaye man de du ma lekk McDonald's sa sama doom du ma ko jënduloo du ma lekk KFC du ma lekk anything that I know is not proper is not halal suñ ko may balee halal nag mën naa ko jënd lu tax parce que yàlla ñamu ahlul kitaab la ñu wax te nekkuñ nag ci dëkku ahlul kitaab dëkk bi ñu nekk ci libéral dëkk la nekk boo xam ne ñii am nañ diine ñii amuñ diine dégg nga ndax dana mën naa am ab Chinese moo ko moom ab Chinese ahlul kitaab mën naa am hindu moo ko moom est ce kitaab loolu ñu fexe ba fexe ba suñu biiru xale yi ñu ciy dugal lu lew suñu biir yi ciy dugal lu lew buñ ñu gis ak sigaret bu ñu gis ak sàngara bu ñu gis ñuy seetaan ay vidéo wala film yoo xam ne ni jaaduwul ci xel jaaduwul ci diine suñu doom yi di ko gis nañ xam ne buñ ko gisee rek day wut is is normal beneen bi mooy we have to do our best to send our kids to Islamic schools. Nobody has excuse now. Everywhere you go in New York in the United States, there are Islamic schools. Parce que li xew mooy in public schools there are so many things that these kids are exposed to maybe yow parent bi doo ko xam ñu def nag lu ñu mën suñ doom yi états yu bari yi ñuy tabax Gambie ak Sénégal te mën naan fa duñ ci dëkk xaalis boobu nañ ko invest ci jàngu xale yi ba dugal leen ci école yoo xam ne ni diine da ngay ko fa jàng boobu muy benn beneen bi mooy jàkk yi nga xam ne ñu ngi ñu mel ni jàkk ji ak jàkk yu mel ni ñoom seen Saturday Sunday programme si ñu fay yóbbu suñ doomi ñu jàngal Alxuraan seen after school programme yi te jàkk ju nekk war naa fexe ba am after school programme parce que jàkk waru nekk rek comme church ñëw rek julli dem but all of you should go the masajid and study your deen and learn the Quran and know about Allah wa ta'ala and the proper way of what Islam and who the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was. fexe ba xale miin jàkk yi di si alquran di ñëw ci xalaqaatu ilmi yi di ñëw ci julli jumaa yi bu ñu bu ñu dem jumaa ñu ànd ak ñoom dégg nga bu ñuy déglu xutba ñu ànd ñoom bu jaree sax fekkee ne jumaa dañu nekk école sax te école bañ nekk happens to not be islamic school et te jàpp naa ne ku nekk war naa am islamic school waaye bu dee ci yooyu la nekk fexeel ci ñaari semaine yu nekk nga fexe ànd ak moom demal bi dem juma ngir lan muy dégg yàlla fexeel ba alxames euh, samedi ak dimanche muy dem di dégg yàlla fexeel ba bu programme yu mel ni amee ngeen indi leen tey bu programme yu mel ni amee ñu koy teelal nga fexe ba xale yi tamit di ci bokk comme ni ngeen choisir di topic bi te sax topic bi euh, dëgg-dëgg ni ngeen ma ko waxee nii boo ko xamoon sax du ma ko du ma ko defee nii su ma xamoon ne xale yëpp nekk du ma ko waxtaanee nii tey dama jàppoon ne mag ñi lañ moom dinaa waxtaan ak ñoom ci nan la ñuy yore xale yi that is all good incha allah tabaraka wa bi mooy we have camps moo xam ay summer camp la wala muslim eh, xam ne mooy am as convention benn ISNA dégg nga xam ne ñu ngi ak throughout the United States ay weekend lay doon yoo xam ne da dem yàgg sa doom ak sa ñu mën ay borom xam-xam yu ñuy ñeent ñoo fay nekk ngeen nekk ci seen hôtel bu ngeen xëyee dem di ngeen am lu ngeen jënd muy ay bopp bu sàmm borom xam-xam yi nekk di wax a ñun ngeen am good time and you have good nii moo war a nekk ay activités yoo xam ne ñun ak doom yi war nañ ci war nañ ci engagé parce que buñ ko deful mooy wutaluñ leen alternative of what they see outside beneen bi mooy. ñu fexe ba li ñuy seet di dem jébbal sama mbokku wasaab yi ñu jébbal ak Sudan ak Norvège baytaal yoo xam ne dara ak ñu fexe di ànd ak xale yi bu ñuy dem màkk moo xam xaj la wala bu ñuy dem màkk moo xam umra la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati nañ ko benn si tuuti ne ko ani haaza hajjun yaa rasulallah qaala naam walakin ashrik ndax fii am na aj mu ne am na aj kay waaye yow ndaw su ko indilee yàlla jox na la yoon loolu li ñu ciy jublu mooy miinal xale bi yooyu ba mu màggee xam kuy màgg xam kuy màgg bëgg ko fexe tamit ba xale yi ñu tàggat leen ci ñu comprendre l'islam ba ñoom ci seen bopp ay daa ñu ndaw la ñuy doon buñ demee ci seen école yi when they ask about Islam in a very simple way they can understand and teach and convey the message of Islam that is our responsibility and it is very doable li gën a yomb tey mooy xam-xam spécial xam-xam et l'islam dëgg la tey mooy living in a time boo xam ne dëkk jullit yu bëri ak yow ñu l'islam waaye tey xam-xamu l'islam ci mu toll ak toppatoo bi ko toppatoo mu si ko toppatoowee la amul benn bopp boo xam ne kaana maxtuutan illaa ak kubra amul benn xam-xam boo xam ne dañ ko négligé woon ci wàllu xam-xamu l'islam yi lu dul tey feeñal la loo ci bëgg la kon nag ñu fexe ba xale yi am good understanding of Islam, not only have good understanding of Islam, but bu ñu leen laajee lu ñu Islam ci seen école yi ñu mën a xam la lay loolu bu ñu demee dégg ci seen école yi ñuy wax leneen ci Islam wala leneen loo xam ne jaadul they will have the clear and good and convincing response. xam nga boo gisee xale bi when they are bully mu leen di naqari dañoo miinul yàlla rek gis nga boo miinee yàlla li la sa morom ñu wax dootu la sax. su fekkee am nga attachment to your parent to an boo xam ne mi ngi lay loo war a mel suñ lay wax lu dul jeex ci àdduna doo ko dégg pourquoi parce que da nga attaché yow soxna Thiané maa ngi lay ziar macha ngi ziar ma xamal ba xale am loolu ku ci mën tamit lu mën a nekk la nga mën a yóbbu sa doom Gambie wala Sénégal wala nangam mu teel a jàng alquran mokkal ko bat bu yàgg rek la ma sama. yaay ji woo kontaan lool ne ma sama sët ba nee dafa ma wàll alxuraan ma sama ma xamante ko ji ma kontaan ci loolu dama ko bëgg nag yóbbu Égypte ma dafa teel a ne yow waaw mel na xale bi fukki at ak ñaar rek la am du loolu ci yàlla bi sama yaay mi ngi may dégg muy loolu kon yooyu ñu fexe ba xale yi teel a miin alxuraan teel a miin diine waxuma la sax loolu waaye ñu tàggat leen ni xale yi di defee ay woy ci école yi ñu def ay dégg nga ñoom Cheikh Tidiane ndaw mi yore seen école yi ñu yóbbu ko xale yi ñu leen di tàggat ci loolu ñun ñëpp ñu fexe ba def loolu ku ci dem ba mat a sëy ñu teel laa maye bu dee boor ñu teel laa wutal jëkkër jabar waaw ñu teel laa wutal jabar bu dee góor ñu teel laa wutal jabar parce que boo ko deful tawartam waaye ni ñu koy defee nag bu dañ leen di force waaye dañ leen di dimbale ci choose the right one fexe seen mbokk yi jullit yi moo xam ne bokk culture wala muy famille jullit boo xam ne bu baax la yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne yu ñu war a teel def la ngir mën a ñàkk suñ njaboot su loolu da ngay toog rek xale bi ñëw ne la nangam wala mu ñëw jëm ci école ba mel ne ndax tey ci affaire ah, sexualité ngeen baal ma dañuy seen école lu la leen leen di exposé surtout bu ñu tolloo ci jamono boo xam ne daanaka ñi ñuy tuddee borom ñaari tur yi ñoom moom dëkk bi. dégg nga décision yëpp daanaka ñoom ñooy déterminer si dafa nekk lu very crucial and important for us to help our kids understand their deen to help our kids follow their deen to help our kids with good character and moralities of Islam help our kids know that which is true ak lu reconnaître lu ñu leneen lu li nga xam ne moom la yàlla reconnaître donte ñu jullit boo xam ne nag mënuloo mënuloo tabaarakallaahu jalgati yoon yi waaye nag mën ngaa ñàkk sa bopp ba lu yëf yi métti kenn du mën ci yow bu ñu demee nag ba nga xam ne ki nga xam ne mooy yilif dëkk bi in when it comes to morality mooy gën a corrupt te xale yi di xool loolu mooy ñun bu ñu doon def benn war nañoo def junne nag pour aar suñu doom war nañoo def junne pour aar suñu njaboot yi war nañoo def junne te ñu toll ci jamono boo xam ne ku nekk ci ñun xam na pa benn parent wala benn mbokk boo xam ne immigration créé na ko problème wala yóbbu na ko lu tax parce que seen seen seen yi ñuy def nii tey nga xam ne séparé xale bi gis naa fan yi ñuy wax de separation of the kids from their parents yooyu yëpp mu ngi am te ñu ñaan suñu borom musal ñu ñëpp ñu ñaan suñu borom defaral ñu suñu laay defaral ñu suñu baatu ñu ñaan suñu borom may ñu ñu xam ne adduna bii dañ fee nekk gan te duñ fi fanaan wala duñ fi yenn wala duñ fi yàgg ab liggéey bu gàtt moo ñu fi indi dinañ ko def dajeeg suñu borom waaye balaa ñoo laaj wax nañ ne balaa ñoo laaj doom nan nga defoon ak sa yaay ak nan nga defoon ak sa baay danañ laaj baay ak yaay nan la defoon ak doom ak nan la def ak ak nan la defoon ak at yi nga xam ne am nga ko yàlla joxoon mbok yi ñaari nettali yi may tëjee dafa am ku ñu tuddee Émile Émile Bustani mooy ki ëppoon alal lu doon dafa seet place bi gën a rafet ci Beyrouth mu defar ko ba mu rafet ne bu dee ko denc ko boo xoolee xabru bi kenn xamul luñ ko mu am avion spécial am lu nekk mu mën yàlla àtte ba ci avion spécial bi bu muy tukki avion bi daanu ci dégg ñu seet seet seet ba gis avion bi waaye moom jëmmam ba kenn ba léegi kenn gisagul ko pour ropp bu nga xamante ni moo loolu war nañoo war nañoo eh, yee ñun ñëpp bokk yi kenn ci ñun xamul sax daa fanaan ak yéen kenn nag nañ fexe ba li ñuy wax ak suuf yi ibnu waxtu yii euh, benn juif wala man nga ko tuddee sax xaw ma juif am na léegi dañ def sioniste muy bokk na ci ñi ëppoon alal Britain donc alalam tollu woon na ci daf daan lebal gouvernement Angleterre alal ay magasin lay amoon yoo xam ne bu nekk dañ ko tëj alal ju jeex benn bés mu dugg ci biir magasin yooyu yàlla ak mu juum tëj bunt bi te mu nekk di yóbbu bi mu demee ba xam ne nii fokk ci dee la jëm kenn mu daldi di matt baaraam deret ji génn mu bind ci ne ci ëpp alal a ngi nii di dee te dara rayu ko loolu xiif ak mat amul ko xeetal ci ëpp alal a ngi nii di dee te dara rayu ko loolu xiif ak mat amul ko xeetal kon nag li ñuy wax mooy luñ mën a am te amuñ yàlla amuñ dara waaye luñ mën a ñàkk gannaaw am nañ yàlla am nañ lépp yàlla yàlla may yàlla hada wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu barakan waki ya mufti mufti Sakho te mu ñu maam rek ñu jàll ci xam dafa mel ni programme commencé na suñu bokk suñu bakkan suñu xarit uñu sa dafa mel ni lecture suñu kay sax ñu ko waxee noonu la from the parents to the children. While next, inshallah, the father from the children to the parents, or the behavior of the children in the United States. While inshallah, the people are then from the, from the children or from the child to the parents, or the Muslim child, behavior Muslim child in America. This is record. One, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, waaw balaa ñoo koy si fond bi di introduire suñu mbokk mi di suñu rafet suñu xarit di suñu bi Gambie di Mouhamad Tangara ambassadeur di ñu toogal ak assistant di ministre Lamine Fati ñoom ñaar ñoo fi ànd si pour que bu ko defee am di ñëwal am nañu nañu comme ambassadeur Mr Waga Moustapha Senghor ak yeneen kilifa from Gambie ak Sénégal li ñuy dajee lu dugg pour ñu ñëwlee ñu gis suñu ñu représenté taxawal na incha allah yaakaar naa dañuy see chance anytime suñu amee problème gan yi suñu ambassadeur si suñu kilifa la ñu ngi welcome Mr ambassadeur ak assistant te ñu doon ko all time anytime suñu xewlee ñu ngi koy wér ñu ngi suñu gannaaw di yooyu woote wu ñu booloon su nekkee nag yéen a fi réseau bi yaakaar naa jigéen ñi ñoo ñoo bind daal gis naa ne góor yi bind nañ waaye balaa di cee dugal ma fàttali mbokk yi rek su ma dégloo tuuti ngeen di bu baax a baax a baax dañ ñoo fëcc xaalis tey bu dina kër am na kër bu gis ci vingt quatre bu yàgg nag war laa lool bi place bi mu daan nekk lu nekk. open euh, place bi rek mun naa gis kaw jël nii waaye am na place bu fa nekk bu def ba gi mu ngay jar one million dollars waaye kër gi mun naa nekk two million dollars au moins wóor na sax dugub la ngeen moom la place bi tabax wu loolu daa bëri fu tabax ñu koo jaayee one million dollars su xamee one million dollars ñu jëndal ko waxuma Gambia rek waaye Afrique yëpp dina ko jëriñoo Afrique yëpp dina ko jëriñoo te li ñu pour ñun waaye suñ puissance yi investment la boo xam ne du féeru investment la boo xam ne du féeru kenn dina kër def ko pour yàlla pour sa njaboot ñàkk ko léegi nag lu waaye yaakaar nañ ne balaa ñu koy jógee si ñoom itam war nañu yomb si ñoom ñoom maa ngi leen doole ñu teg ko pour teg ko ñu naan mu ah, yokk waaye kan moo ko mën a génne seen loxo yàlla moo mën waaye nañu koo teg ci loxo maam jéem suñ mag suñ xarit wàcce boppam lool foo ko woo muuy la loo ko sant mu defal la su ma sant jéem bi ñu xam ne jéem la bokk ci xam ñoo xam man dama ko dugal ko dama ko dugal sa dama toll woo ko rek bu kànjaay kaan jógal moom waaye nag mu ngi mu kànjaay mu jóg la mën a 왜 우리 나라에 나가는 나가야 세트는요 이렇게는요 양양이야 괜찮다는 얘는 내가 그 얘가 또 원하는 것도 봐라 근데 정말 저라 저리 접수나 그나 그게가 나비 mu génne xaalis bi mu koy jëndee place bu one million dollar su mu am one million tamit doon xaq million ak ñaar ci banque bu nekk ni tuuti di jënd kër bi asalaamaaleykum أعوذ بالله nañ dara mënu leen tere nag lu dul dañu leen prépareel béréb place boo xam ne daañu leen fa mën di yare daañu fa mën di jaxasoo ak ñun bu ñu demee ci école ba bu ñu dem see man fa ànd ak ñun loo école ba defoon ci ñoom te du du yàlla gërëm ñu mën ko dund ku nekk sa njaboot ku nu yàlla gërëm bu demee li ñu njëkk a fexe mooy génne loolu ci boppam daa ñu génne leen ci bopp xale yi day génne ci seen bopp yi xamal leen ni yéen ay africain ay américain leen ndax fi ngeen juddoo ndax fi ngeen juddoo